tàkk-tàkk yi amoon fee ca Touba marché Ocass jenn waaye ngi nii jàpp nañu la taal marché ba ay loxoom génn ca ndax ginnaaw bi nga xam ne sapeur ñëw na ngir fay lakk-lakk gi dañ koo bett mu yor benn biteelu essence moom waa ji di ko tuur ci suuf ci noonu nag eh, la ko lañ ko daal di tegee loxo ba yóbbu ko ca commissariat bu ndaamaatu ginnaaw bi ko xam ne ginnaaw bi nga xam ne nag police déglu na ko moom waa ji dafa xam ne ni moom biteel bi jublu si woon ngir taal marché bi waa ji si doon def yeneen i soxlaam moom waa ji nag mi ngi wuyoo ci turu KN boo ngeen déggee KN nag maanaam tur bi dañ koo abrégé. ba tey ca seede yi nga xam ne ña nga woon sa marché ba neneen bi tàkk-tàkk bi di am moom waa ji mi ngi génnee ci biir euh, marché bi yor benn butéel ba tey tamit nee nañ waa ji moom dafa mel ni ku amee wërëdim xel maanaam fa mel ni ku àndut ak sagoom waaye lépp lu ci tukkeewaat ci xibaar rek daanu leen ko dégtal fii ci AVS TV mbokk yi ba léegi dañuy desandi fe ca diwaanu Touba ca marché Ocass bi nga xam ne lakk-lakk yi mi ngi am nag am na ay ñu lu mat fukki nit yoo xam ne nii police daal dina leen teg loxo ñoom nag doon amal ay ñaaw ñaawteef lu doy waar. ginnaaw bi nga xam ne marché bi mi ngi tàkk ñoom nag dañoo ñëw rek euh, di jël lu si mel ni ay tissus ak ay téléphone ak yenn bagages yi nga xam ne ña nga woon ca cantine ya wala sax ca magasin ya ñoom nag police si euh, teg police ak seen njàmbaate nag. daan nañ leen teg loxo ñoom fukki nit yooyee ba yóbbu leen ca commissariat muy mbir mu doy nag ndax ñoom boo leen giccee sa jamono jooju dañoo mel ni kuy rawale seeni bagage ndekete yoo ñoom ay sàcc lañu. bu ñu dikkee ci yàqu-yàqu yi nga xam ne am na ca marché ba ginnaawu tàkk-tàkk bi nag bu ñu sukkandikoo ci waa Le Soleil ñoom nag wax nañ ni cent quatre-vingts magasins ñoo fa daal di yàqu ci tàkk-tàkk bi ak soixante-dix magasins. mbokk yi ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah di leen wax ngeen woy di abonné te activer cloche de notification bi.